asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum mbokk turfis yi nañu fi tax a tey lu tax mais tout li am solo ci week-end bi nga xam ne week-end de fin d'année la le samedi 31 décembre 2022 et le dimanche 1er janvier 2023 gannaaw nag euh, ni ñu ko defee woon ci week-end de Noël bi mu nekk benn tirelire spécial euh, Quinté Plus bi nga xam ne que mu ngi amoon le samedi 24 et le dimanche cinq dañuy ñëw nag ci li nga xam ne que mooy euh, xew ci week de fin d'année pour nag présenter leen ko dam ciy ànd tout simplement ki nga xam ne que muy Mohamed Mohamed ma nuyu la. Marie maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokku turist yi di am mbégte di jàkkaarloo ak yéen di la bàyyi nga àggali ci. événement bu solo boobu. waaw comme ni nga ko waxee léegi événement bi euh, dam ciy ñëw ci li nga xam ne que moo nar a xew euh, samedi nekk le 31 décembre 2022 tirelire spéciale Kanté Plus de 327 millions 500 mille francs boo xam ne moom la ñu teg euh, ci euh, prix bi nga ne que moo pri prix Bar-le-Duc mi nga xam ne que dafa nar am ci hippodrome de Paris-Vincennes foofu nag fas yi nga xam ne que ñu ngi am diggante juróom jàpp fukki at ñoom ñoo fa nar a daw benn distance boo xam ne que mu ngi toll ci 2850 mètres soo leen joué ci mass commune international mu a prétendre gagner somme bu énorme boobu di 327 millions 500 mille francs kon nag ma ñëw wax Mouhamed moo wax leen li nga xam ne que moo nar a xew le premier janvier. mbokk turfiste yi le dimanche premier janvier at bu bees dynamique de fête ak le prix de Bourgogne nekk avant dernière course le grand prix d'Amérique ci distance su deux mille cent mètres fas yi fas yi ne jongante trois premiers places yi. ci quinte plus bi maanaam ci masse commune internationale bi trois cent vingt sept millions cinq cent mille francs CFA trois cent vingt sept millions cinq cent mille francs CFA kon nag Marie à vos marques. Paris.